jëf mbokk yi nga xam ne yéen ngi topp 24actu point com ñu dikk ak yéen ci décryptage bi nga xam ne dañ leen koy amalal euh, gannaaw discours bi nga xam ne rek président de la république euh, Macky Sall def na ko euh, tey jilee lu jëm ci tolluwaayuk mbas mi nga xam ne rek moom moo am ci réewum Sénégal. internet 24actu ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax a baax ànd bi ngeen di àndal ñun saa su nekk Ousseynou comme ni ñu ko déggee rek li nga xamante ni moo di discours bi ñëpp doon xaar fii ci réewum Sénégal président Macky Sall daal dinay génn daal di janoog askan bi daal dinay waxtaane loo ama ama am solo waaye Ousseynou dañuy daal di rappelé rek li nga xamante ni moo di jàngoro ji ginnaaw mu duggee ci bu seetloo la 2 mars la daan duggal ci réew mi boobee ba tey di génn ñaax di génn di jox ay yoo xam ay déclaration yoo xamante ni mi ngi koy amal bi ci njëkk rek jàpp nañ la 14 mars génnoon na bi mu génnee ci la moo di ñu aj li nga xamante ne ni moo di yi ak yi nga xamante ne ni moo di manifestation yi ak yu bëree bëri koroog la 14 mars ba mu génnee def déclaration bi loolu la xam ne ba ca topp mu defaat ko le 23 mars le 23 mars nag déclaration bi nga xamante ni def na ko mi ngi jëm ci li nga xamante ni moo di couvre-feu toftati li nga xamante ni moo di état d'urgence depuis le 23 mars ba léegi ñu ngi wéyal di jëfandigal loolee nga xamante ni joxe na ko mu jëm ci wàllum couvre-feu ak état d'urgence bi beneen mu beneen génn tamit daal na koy defaat bi nga xamante ni moo di le 3 avril génn boobu rek la wund moo di li nga xamante ni moo di euh, dimbali nit ñi ci li nga xamante ni moo di fayum courant mi ak fayum ndox mi ak yeneen yeneen ak aide alimentaire yu ni mel yu bëree bëri colloque le 3 avril ba mu génnee euh, daal dina koy euh, dimbalee askan bi tey nag mu daal di génn génnaat daal di wax beneen loo xamante nii soxal na loolu Sénégalais yi ndax ñëpp ñu ngi ko doon xaar ngir mu génn wax ak askan bi ndaxte jàngoro ji naam na mi ngi woy di lëmbee àddina wërngal këpp waaye teewul li nga xamante ne nii Ousseynou moo di économie réew mi ba léegi mi ngi mi ngi sooxe lool lool ba tax njiitum réew mi tey daal dinay génn bi mu génnee nag li mu xam ne moo di dafa njëkk remercier ñi nga xamante ni moo di personnel de santé ci seen xarañte ak taux bi nga xamante ni ñu ngi koy recevoir ci test ba ci ak nombre de guérisons yi nga xamante ni ñu ngi koy am par bés ministre bi ak ministre nombre de guérisons yi nga xamante ni mi ngi koy am par bés jiitu réewum Sénégal daal xamante ni moo di personnel de santé yi ak couturiers yi maanaam ci taxawaay bi nga xam taxawu nañ ko ngir di defar ay masques yoo xamante ni local la séddale askan bi ndax te yaakaar naa ne jënd masque yi métti loolu ba tax bu jëlee ay tissu rek daal koy jàppale ñi nga yoo xam ne jot na ko andi euh, jëmale ko ci wàllu ko mbas mi woyofal yi nag tàmbali na ko ci lu jëm ci marché yi nga xam ne euh, dañ leen a euh, tëjoon presque yenn heure yu bari yoo xam ne dañ ko doon tëj léegi nag tëj bi wàññi nañ ko maanaam ci ayu bés gi am na benn bés boo xam ne dañu koy liggéey loolee nañ koy organiser kilifa yi nga xam ne ñoo nekkee ci fànn googu itam Euh, wax na ci euh, fànn boobu waaye nag wax lu soxal itam li nga xam ne rek moo di wàllu ko ñi nga xam ne xam ngeen ne nawet bi daanaka egsi ba noppi waaye ñi nga xam ne rek ñoo di baykat yi nga xam ne fekk na leen euh, feneen tëj leen fa muy état d'urgence bi ñooñu tamit naka la ñuy organiser woo ba ñu mën a dellu fi nga xam ne foofu la ñu nekkoon war a jëbli ci liggéey bi loolu itam xam ngeen ne président de la république Macky mu waxaat beneen point bu am solo boo xam ne itam jëm na ci lieu de culture muy bërëb nga xam ne dañ fay jaamoo yàlla goo xam ne dina ci mais itam ñu organiser ko loolu itam bokk na yi nga xam ne moom jiital na ko ci euh, ci euh, fànn googu lu jëm ci euh, état d'urgence bi ak couvre bi nga xam ne moom lañ ko bëri doon séntu muy heure bi nga xam ne moom la ñu ko doon kii léegi yóbbu nañ ko ba vingt et une loolu itam nekk loo xam ne itam yaakaar naa ne askan wi ñi ngi ko doon xaar bu baax a baax donc kon jàngat bi nga xam ne mënees na ko cee def jëmale ko ci fànn googu d'abord euh, ñu tàmbali ko ak xeex bi le vrai que xeex bi depuis bi ñu ko tàmbalee boobaak léegi yàgg na waaye tey li nga xam ne rek moo di limu ñi nga xam ne jot nañu amee jàngoro ji gën naa yokk ci réewum Sénégal loolu tam bokk ci li xam ne moom moo di euh, li xajamal yëf yi waaye gis nañu ni euh, yenn ci ay réew yi nga xam ne ñoom ñoo nekkee ci Afrique dañuy boole li nga xam ne rek moo di virus bi ak liggéey parce que gis nañu ay koom jafe-jafe yu bëri yoo xam ne da koy andi ci wàllu ko koom-koom ba tax na loolu bokk na ci sabab yi nga xam ne euh, président de la république euh, Macky Sall jëmale na ko euh, ci fànn googu leneen loo xam ne itam ma des na ci waxtaane muy askan wi ñu gën leen xamal yan comportement la ñu war a amee ci bu fekkee ne dañu ubbi li nga xam ne rek moom moo di buntu yi c'est-à-dire woyefal gi parce que bu ñu nee woyefal rek ñëpp delluwaat ci liñ nekkoon je crois que ni beneen problème parce que gis nañ ay réew yoo xam ne bu ñu ubbee yenn ci école yi président de la république sax wax na ci réew bu ci mel ne Allemagne donc bi ñu ubbee am nañu jafe-jafe ñu mujj tëjaat donc pour euh, loolu euh, bañ ñu dal donc yaakaar naa ni am na ay matuwaay yoo xam solo yoo xam ne warees na ko jël rawatina nag euh, beneen ponk boo xam ni itam wax na ci muy lu jëm ci wàllug masque yi nga xam ne dinañ ko distribuer ci béréb yi nga xam ne dafay bëri nit loolu itam bokk ci li nga xam ne mën naa xeex lu jëm ci jàngoro ji nga xam ne rek moom moo di Covid 19 waaye nag mu mel ni loolu donte xeex bi am na tolluwaay beeg fu ñu ci toll waaye am na ay matuwaay yoo xam ne itam warees na koo jël ndax xam nañ ne école yi fekkee ne même bu ñu ko ubbiwaatee am na ay mesures d'accompagnement yoo xam ne war na koo àndal rawatina ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci école yi ak euh, li nga xam ne rek moo di euh, fànn googee loolu tamit nekk li nga xam ne itam dañ ko war a bàyyi xel bu baax a que euh, classe d'examen yi la wax ne la ñuy ubbi waaye ñoom itam ci ban anam la ñu koy ubbee loolu mooy question bi nga xam ne moom la ñu war a poser waaye itam beneen bi mooy lu jëm ci transport bi nga xam ne da am ci digg diggante dëkk ak dëkk loolu wax na ci mais la koo cof donc lool itam euh, yaakaar naa ne bu ñuy wax waxum koom-koom itam bokk na ci li nga xam ne euh, euh, gàllankoor na li nga xam ne moom moo di koom-koom bi waaye itam mu gën yee nit ñi ci naka la ni dundee ak virus bi pour ma loolu mooy discours bi donc je crois que nii euh, yaakaar naa ne président de la république euh, fi ko ñu bëri doon xaar ci euh, fànn googu am na ci ay ponk yu bëri yoo xam ne jot na koo laal donc li ci des nag moom mooy gën a yee askan wi ci fànn googu ak taxawaay bi nga xam ne war nañ ci. ak ñi nga xamante moo di guide religieux yi ndaxte boo xoolee boobee ba léegi lii fiy jàkka ak ay juma loolu lépp dafa daal tëj ba ci suñu mbokku chrétiens yi tamit lépp loo xamante ni daan nañ fa tëral leen ci ndigal loolee nga xamante ne ànd nañ ko moom lépp ngir xeex pandémie bii di Covid 19. ci stratégie yi nga xamante ne nii tey jël na ko ak li nga xamante ne nii njiitum réew mi daal dina koy xaw a woyofal ginnaaw décision yi nga xamante ne nii jëloon na ko Ousseynou le bokk na ci wàññi na nga xamante ne nii moo di heure état d'urgence bu njëkkoon entre vingt la woon ba six heures du matin gis ki nga xamante ne nii moo di njiitum tey daal dina koy wàññi def ko vingt et une heures ba cinq heures du matin Ousseynou loolu lañ mën a jàpp daal cay toftal li nga xamante ne nii moo di daal daan na cee toftal li nga xamante ni moo di lieu de culture maanaam jàkka yi ak jumaa yi ak suñu mbokku yi ñoom ñëpp mën nañoo delluwaat ci yi nga xamante ne ni fa lañ doon ñaanee président Macky Sall daal dina koy def euh, ngir daganal ngir ñu bàyyiwaat jàkka yi ak jumaa yi daal di ubbiwaat Ousseynou ci loolee rek lam ci toftal tamit daal di ne ba tey dañuy continuer di respecter li nga xamante ni moo di mesure barrières yi di fonk li nga xamante ni moo di masque yi di daal di may di may tonté par un mètre lépp loo xamante ministre bi génn na ko ngir xeex jàngoro ji di Covid 19 Ousseynou jiitum réewum Sénégal daal na ci insisté waat tey ji bu baax baax naam ne dinañ ubbiwaat jàkka yi waaye du li nga xamante ni moom moo di mesure barrière yooyu la changement couvre-feu bi nag suba lay tàmbali mardi lay commencé ñu daal di wàññi bi def ko 21 heures ba 5 heures du matin ki xam ne loolu rek mooy njiitum réewum Sénégal ci li nga xamante ni doon na ko def tey lam ca toftal moo di marché yi nee marché yi day ubbi tous les jours mooy 6 jours yëpp day tijji marché yi 6 jours yi day tijji benn jour lañ ko tijji ngir désinfecter marché bi maanaam dindi saleté yi nga xamante ni am na ci loolu tamit ab changement la bu amoon ci marché yi ndax boo xoolee ñoom heure yi ñu daan ubbi demeewul toon noonu wax beneen demoon nañ sax ba jàppaleen ay jours waaye njiitum réew mi nee na mën nañoo ubbi 6 jours benn jour bi nga xamante ni moom la jur ubbi mooy dañ ci désinfecté li nga xamante ni moo di marché yi ñi nga xamante ni tamit dañuy xëy ci bureau yi ñoom tamit yaakaar naa ne defal na leen 9h ba 16h seen heure tamit daal nay am ak coppiku ñi nga xamante ni tamit moo di port masque obligatoire ba tey ñu ngi wéyatu ko amal ba tax mu yëkkati 10 millions de masques yoo xamante ni da koy séddale ci lieu de culte yi ak école yi ak yu ni mel yenn place publique yi moom njiitum réew mu nee na 10 millions de masques dinañ ko yëkkati daal koy jëmee ci askan bi ngir ñu koy jëfandikoo lépp rek ngir xeex jàngoro jii di Covid 19. ci biir discours bi tamit génn na li nga xamante ni nii moo di delluwaat ci école yi bu kon mën nañoo jàpp ne élèves mën nañoo wàcc ñu delluwaat ci école yi le 2 juin waaye ña mu ña wax rek mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci classe d'examen yi ñu ci mel ni ñuy def euh, certificat ak ñi nga xamante ni ñooy def BFEM ak ñi nga xamante ni ñooy def baccalauréat kon ñooñu ñooy reprendre seeni cours le 2 juin ñi nga xamante ni nag nekkuñ ci classe examen yu Ousseynou dañuy daal jëfandikoo li nga xamante ni moo di numérique bi ak ci téléphone yee ci rajo yeeg fooy fu ñu mën a jaarale seen xam-xam rek fa la ñuy jaar ngir mën a jaar ngir mën faa jàng en attendant affaire yi di soppeeku ñu mën a delluwaat ci seen école yi ak Ousseynou lii rek lañ fi jotoon a tënk rek jëm ci discours bi nga xamante ne njiitum réewum ko euh, loolu tamit nekk li nga xam ne itam dañ ko war a bàyyi xel bu baax a baax parce que euh, classe d'examen yi la wax ne la ñuy ubbi waaye ñoom itam ci ban anam la ñu koy ubbee loolu mooy question bi nga xam ne moom la ñu war a posé waaye itam beneen bi mooy lu jëm ci euh, transport bi nga xam ne da am ci diggante dëkk ak dëkk loolu wax na ci mais la ko cof donc loolu itam yaakaar naa naa ne bu ñuy waxum koom-koom itam bokk na ci li nga xam ne euh, gàllankoor na li nga xam ne moom moo di euh, koom-koom bi waaye itam gën yee nit ñi ci naka la ñuy dundee ak virus bi pour le loolu mooy euh, discours bi donc je crois que ni euh, yaakaar naa ne président de la république euh, fi ko ñu bëri doon xaar ci euh, fànn googu am na ci ay ponk yu bëri yoo xam ne jot na koo laal donc li ci des nag moom mooy gën a yee askan wi ci fànn googu ak taxawaay bi nga xam ne war nañ cee amee ak naka la ñuy dundee ak virus bu mel nii ndax yaakaar naa ne miinuñu woon lu mel nii donc taxawaay bu am solo boo xam ne wax nañ ko ci amee wax na ay masque waaye tamit yaakaar naa bokk na ci li nga xam ne moom moo ci gën a am solo mooy gën sensibiliser waat nit ñi xamal leen jàngoro ji euh, li ci nekk parce que fi mu toll nii li nga xam ne euh, am nañu ko ci ay cas jéggi na dayoo lool te yaakaar naa ni tam euh, fi mu toll nii tey li ñu ci cas mosuñu ko am ba xeex bi tàmbalee ak léegi daanaka léegi te egg ci deux mille cas loolu tamit nekk loo xam ne warees na ko xoolaat bu baax a baax donc kon Maguette tey xam naa loolu mooy li nga xam ne moom mooy situation président bi nga xam ne moom lañ doon den defal muy lu jëm ci wàllu wàllug euh, kàddu yi nga xam ne président de la république Macky Sall doon na ko yëkkati jëmale ko ci mbas mi ak tolluwaay gi ci réewum Sénégal xeex bi ba mu amee ñaari weer lu teg ak dogal yi nga xam ne jëlaan na ko ci ay muy ay woyefal goo xam ne am na ci ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm di leen jox daje incha allah yeneen jotaay jërë ngeen jëf.